الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي دنيت ربي بمدحتي شفي في المنطق البديع أبغي يا محمد دنيت ربي الرحمن الرحيم الفصل الأول في ذكر ما أنزل الله تعالى في كتابه من فضله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل بعثته للعالمين رحمة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأمنا أعداؤه من العذاب مدة حياته عليه السلام وذلك قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولم يعذبهم مع استعجالهم إياه تحقيقا لما نعته به فلما ذهب عنه إلى ربه تبارك وتعالى أنزل الله بهم ما عذبهم به من قتل وأسر وذلك قوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون بسم الله الرحمن الرحيم بنت بي dafay tudd li yàlla wàcce ci téeréem bi ci ay ngëneel yoo xam ne jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bokk na ci loolu mooy yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo yónni ngir mu nekk yërmande ñeel mboolem mbindeef yépp wax na ci alquran ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni mu ne lu may nga nekk yërmande ñeel mbooleem lu yàlla bind alamina lépp lu dul yàlla rek dugg nga ci mu ne looloo tax yàlla joxoon leen kóllëre ci mbugal ñoom noonam yi sallallahu alayhi wa sallam diirab di yonent bi di dund ñu ngi ci kóllëre dara dalu leen yàlla sax wax na ne wa ma kaana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wax na yonent bi na ko nekk moom di leen mbugal ñoom waa Màkka te fekk yaa ngi seen biir wala sa noon yi fu mën a nekk mu ne yàlla mbugalu leen ànd ak ne yàkkamti woon nañ ko wala di wane ne yàkkamti nañ ko ngir fenloo yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla defut ko ndax fekk na mu ebal yonantu bi ngir mu nekk yërmande ba pare melal na ko ci yërmande kon nag dootu soppi loolu waaye nag mu ne ba yonantu bi demee nag dellu ci boromam sallallahu alayhi ci la yàlla wàccee ay mbugal ci ñoom ay xeeti rey ay xeeti jaamuloo leen yoo xam ne كان خبر من طرف وتح من فإما نذبن بك فإنا من المنتقم سن لا دمي رك دال لي فاي سي نيوم نك لب لو خامنا ما سن كو ديف سي بون اف ويد بي لي دون صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا قتيبه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين قال إنما بعثت نعمة ولم أبعث عذابا سؤالين جليج قاسم دم عبد الرحمن جليج أبي أمامة رضي الله عنه جليج ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه وحنه yàlla daf ma yónni ngir ma nekk yërmande ñeel mbooleem ñu def yépp ak njub ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla tey solo nañ jëlee ci Abu Hurayra anhu mu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko dox doo ñaan yàlla bokkaalekat yi ci màkk xéefar yi ci màkk nga ñaan leen yàlla ak fu ñu mën ci jaziratul arab yonent bi ne man dañ ma yoni may xewal way yoni wuñ ma ngir ma nek mbugal sallallahu alaihi wasallam من فضائله إخبار الله عز وجل عن إجلال قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتعظيمه وذلك أنه ما خاطبه في كتابه ولا أخبر عنه إلا بالكتاب إلا بالكناية التي هي النبوة والرسالة التي هي النبوة والرسالة التي لا أجل منها فخرا ولا أعظم خطرا وخاطب غيره من الأنبياء وقومهم وأخبر عنهم بأسمائهم ولم يذكرهم بالكناية التي هي غاية المرتبة إلا أن يكون الرسول في جملتهم بمشاركة بمشاركته معهم في الخطاب والخبر فما في حال الانفراد فما ذكرهم إلا بأسمائهم والكناية عن الاسم غاية التعظيم للمخاطب للمخاطب المجلل والمدعو العظيم لأن من بلغ به غاية التعظيم كني عن اسمه إن كان ملكا قيل يا أيها الملك وإن كان أميرا قيل يا أيها الأمير وإن كان خليفة قيل يا أيها الخليفة وإن كان ديانا قيل يا أيها الحبر أيها القس أيها العالم أيها الفقيه ففضل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغ به غاية الرتبة وبلغ به غاية الرتبة وأعالي رفعته فقال لنبيه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي حسبك الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في آيات كثيرة الله صلى الله عليه وسلم yi yonent bi الله alayhi wa di wane màggaay daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ak màggal gi mu ko màggal ak teraanga bi mu ko jox loolu dana feeñ ci buy wax ak moom walla muy wax ci mbiram ni mu koy jiitalalee dàkkantal du tëb rek tudd turam ni ki yeneen yonent yi leen di tudd moom mu yonent bi sallallahu alayhi waxtu bu ko bëggee tudd walla muy wax ci mbiram dana ko dàkkantal ci nubuwatu wane ne yonentu bu yàlla yónni la war risaala wane ne kuñ yónni la yonentu la buñ yónni nga xam ne mu ne loolu dara gënu ko màgg pukkare dara gënu koo rëy itam mbir yu dut moom nag ci yonentu yi buy wax ci ñoom wala muy mu leen di tudd seen tur yi rek lay tudd mosu leen a defal dàkkantal boobu mu defal yonante bi sallallahu alayhi wa mu ne loolu nag mooy dayoog daraja boo xam ne jox nañ ko mu ne su yonant bi nekkee ci seen biir sax da nga gis mu tuddee yonant bi noo xam ne bokkut ak dem leen di tuddee ñoom su fekkee ne dafa wéet moom kenn itam du ko tudd lu may mu jiital dàkkantal ci turam te dàkkantal wëlis nga jaar ci turu nit ki mu ne mooy dayob màggal nit la mooy dayob màggal ki nga xam ne moom ngay waxat te yëkkati ko ak ki ngay oo tam nekk nit ku màgg ci yow fekkee ne kilifa la boo koy oo mënoo tëb tëb rek jaar ci turam olof yi sax dañuy wax ne dafay sàllalu dafay sàllalu kilifa yi dafay dafay jaar seen tur yi maanaam waaye su fekkee ko fonk la bala ngaa tudd turam fokk nga am loo ci jarale ñi nga xam ne amul dara benn daraja bu ñu amee sax bu ñu demee ba doon mag rek boo jaaree seen tur yi ni daf leen di bett rawatina su fekkee fekk na sax fi dem màkk bu boobaa dañuy wax ne baati alaaji bi sax jiitalalu ma ko su ma tur rek ci la jaar moo tax loolu yàlla defal yonent bi màggal ko ak yëkkati ko ci kaw yonent yeneen yi ci des la ci jublu mu ne su fekkee ne buur yi àddina yi rek danga leen màggal ne yaa ayyuhal malik su fekkee amir la nga ne yaa ayyuhal amir wala xalifa la nga ne yaa ayyuhal xalifa su fekkee ne boroom xam-xami diine la nga ne yaa ayyuhal xabru yow fóote wala nga ne su fekkee ci catholique yi la nga ne yaa ayyuhal qis fekkee borom xam-xam la nga ne ay ayyuhal faqih mu ne yàlla nag gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak egg ak moom ci daraja ja gën a kawe ak yëkkatiku ga gën a kawe moo tax fu mu ko tuddee rek wala mu koy oo yaa ayyuhan nabiyyu lay wax inna arsalnaka shahidan wa bashiran wala mu ne yaa ayyuhan nabiyyu hasbukallah قل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون بالكفر نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك من أجل آية يبرج القرآن يوقعنا دوغيس مك متبتب رك تدو ترمي تجيتل لكم يتكتل ماغل بنكم ماغل صلى الله عليه وسلم خاطب آدم ومن دونه من النبيين بأسمائهم وكذلك الإخبار عنهم فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وعصى آدم ربه فغوى في الإخبار عنه ويا نوح اهبط ونادى نوح ابنه ويا إبراهيم أعرض عن هذا وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويا موسى إني اصطفيتك على الناس وقال فوكزه موسى فقضى عليه ويا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك ويقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وكذلك غيرهم من الأنبياء يا هود ما, جئت جئتنا ببينة ويا صالح ائتنا بما تعدنا ويا داود إنا جعلناك ولقد فتنا سليمان ويا زكريا إنا نبشرك ويا يحيى خذ الكتاب كل أولئك wutimu bi asmaihim li mu wax ne nit kuñ màggal yëkkati la dañ lay jiitalal dàkkantal bi la ñu tudd sa tur loolu la defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla yeneen yonent yi nag dalee ci aadama ba ci isa ñépp bu leen tuddee ci alquran rek ci seen tur yi rek lay tëb dal aadam yaa aadam uskun anta zawjukal janna فعسى آدم ربه فغوى بني وقت أنت على نوح نتم يا نوح اهبط السلام ونادى نوح ابنه بني وقت أنت على إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إذ رفعوا إبراهيم القواعد من البيت بني وقت أنت على موسى يا موسى إني استويتك على الناس فوكزه موسى فقضى عليه ومو wax jiran jaal ciise ibn maryam يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ قال إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ñu dul ñoom itam ci yonantu yi buy wax ci ñoom wala mu leen di oo seen tur yi rek ci lay tëb dal yaa huudu maa jiitanaa bi bayinatin kooku yonantu yàlla huudu la يا صالح ابتنا وقيمت يا صالح يا داود إنا جعلناك يونت يا داود ولقد فتنا سليمان يونت يا سليمان يا زكريا إنا نبشرك بتايكو يونت يا زكريا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يوم يب سنتوري رك كلا وخيك يوم waaye nag wuute na ak place yi njàng sànq mu tudd ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp rek daf koo jiitalal ak màggal ak dàkkantal loolu jaar ci turam loolu moo ko mooy wane yëkkati ki ko yàlla yëkkati ci kaw mbokkam yépp yeneen yonent yi des te bu yëkkati ko ci kaw yonent yépp moo ne yëkkati ko na ci kaw lépp lu yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam وكل موضع ذكر محمدا عليه السلام باسمه أضاف إليه ذكر رسالته فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال محمد رسول الله فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقال وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فسماه ليعلم ليعلم من جحده أن أمره وكتابه هو الحق ولأنهم لم يعرفوه إلا بمحمد ولو لم يسمه لم يعلم ولو لم يسمه لم يعلم اسمه من الكتاب وكذلك سائر الأنبياء لو لم يسموا في الكتاب ما عرفت أساميهم وتسمية الله له محمدا وذلك كله زيادة في وذلك كله زيادة في جلالته ونبالته ونباهته وشرفه لأن اسمه مشتق من اسم الله كما مدحه عمه فقال وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد ثم جمع في ذكر بين اسم خليله ونبيه فسمى خليله باسمه وكنى حبيبه بنبوته فقال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي فكناه إجلالا ورفعه لفضل مرتبته ونباهته عنده من ne إيران تجاب yonent yëpp seen tur yi ci la yàlla bu jaar muy بمن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ينتي آية خامنة سانيو عند ترم محمد في القرآن دنا تيجي لو خامنة أجيء كتير لا تر لا لا لا تكتل دنا تيجي تك رسالة وننا كيوني لا يرول ياب رمغل درجة ينتقل محمد صلى الله عليه وسلم Jangan jangan ayat yang kita jemalah Muhammadul Ilah Rasul. Mungkin tu dia itu. تجنجي رسالتي تجنى بين آية محمد رسول الله محمد رسول الله باتي مغالكو موتاخ تكتش رسول الله يقول آية يتل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ينتل بي آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم تدنكو غير نقم ترم nga xam ne ku ko bëgg a di itam doo mën a weddi mukk gannaaw bu ko yàlla tuddee nii leeral ne mooy Muhammad waaye tudd ko ak saranga ak yëkkati ko kenn du mën a weddi na moom bu pare wone ne mbiram moom yonent bi ak téereem bi rek mooy dëgg mu ne ñoom Muhammad lañ ko xamee woon kon bu ñu gisee alquran tudd ko ne Muhammad danañ xam ne kii mooy ki ñu doon tudd ñun téere bi wàcc pour dëgëral loolu pour wéral ko ndax mbooleem yonent yi wéy mun na ñoom ñëpp su fekkoon ne yàlla tudd seen tur ci téere bi duñ xam seen tur yi duñ xam nañ tudd moo tax yàlla tuddee yonent bi muhammad comme niñ ko xame waaye nag dollil ko ci luy wane ak teral ko ak màggal ko ak yëkkati ko ak jox ko teraanga ci kaw mboolem yonent yi yëpp te mu ne Muhammad googu ñu ko tuddee mu ne ñu ngi ko xottee ci tur yàlla ni ki nga xam ne bay taxam Abbas tàgg na ko ne ci tur yàlla lañ ko xarale turam bi ngir màggal màggale ko mu ne yàlla mooy Mahmoud te kii di yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy Muhammad yàlla duna aaya ci alquran boole ci turi xaritam yonent yàlla ibrahim ak soppeem ki yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla ibrahim mooy xalil yonent yàlla muhammad mooy habib yi leen utale nag mooy xalil xarit mooy koo xam ne lu mu la ñaan nga may ko habib nag mooy koo xam ne da koy may bala laa ñaan waaye yàlla ba mu leen di tudd ñoom ñaar ci benn aaya dafa wax ne inna awla nnaasi bi ibrahim ibrahima alladina tabauhu wa hada nabi gis nga ko ibrahim sàllal na ko tudd turam rek waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom la taarifal noonu ne wa hada nabi ngir màggale ko ko ak yëkkatee ko ko ak wane nga ne la moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci kaw yonent yëpp ndax su tegoo ci kaw ibrahim rek tegu na ci mbooleem yonent yi ndax ibrahima ci gën gannaawam moom gannaawam ibrahima ci gën te ibrahima mooy maamam waaye ak loolu yépp yàlla ba mu leen tuddee ci aaya turi ibrahim la tudd màggal ko moom laafal ko nubuutu pour màggalee ko ko sallallahu alayhi wa أصل الأصول والأنجال بين لم يصل نوره بعين إلهي